waa li waral tànk yi tey dañoo taxawal alliance nationale pour le développement de la femme rurale depuis 2019 di ko doxal ba ren ñu def suñu assemblée générale constitutive fal suñu bureau am suñu récépissé ñu war a def nag lancement nationale des activités de l' alliance mu tombe nag ak célébration journée internationale de la femme rurale ñu war a defaale assemblée générale constitutive bu région de Diourbel war a installer officiellement seen bureau régional bi ñu ko jàppee nag mu tombee ak mois d' octobre bii nga xam ni ku nekk xam na ne octobre bari na ay bagages bari na ay activité bari na ay journée dédiée octobre rose mu ngi fi journée femme rurale mu ngi fi journée de la fille tamit mu ngi ci ñu ni nag comme Diourbel lañ koy defee na ñu dem Diourbel waxtaan ak waa Diourbel ñu dem woote région Diourbel yëpp ñu tase ca Croix-Rouge ba ci njiitul Adja Rabiatou kamara mi nga xam ne mooy présidente régional bu Diourbel bi ñu réunion ñëpp ànd maase ni nañu defee ci bés bi ca Touba. lu tax Touba ñun dañuy kuréel guy soog a jóg soxla nañu ñaan soxla jàppale soxla ndimbal bi ñu nee Touba ñu ne am nañu kat béréb boo xam ne buñ ko jotee dinañ ko fa mën a defee te duñu luyee bâche duñu luyee chaise ñu ni tamit Touba. buñ ko fa defee de dinañ mën a dem ci xalif bi ziyaare ko mu ñaanal ñu buñ ko doon defee feneen sax dañ koy def rawatina bi ñu ñëwee Touba te loolu moo xew fii tey ndax sëriñ mun ku ko xam-xam ni am na yërmande ci askan wi am na yërmande ci taalibe yi am na yërmande ci njaboot gi waaye am na yërmande ci jigéen ñi bu ñu xoolee li xew ca Poroxaan rek ñaatay jigéen ñooy wàcc alxuraan ñu gis ni kat ñun comme yëngu-yëngu développement économique la ñuy def kon munuñoo ñàkka gis sëriñ bi mu ñaanal ñu ca loolee ñuy def ndax loolu tamit dina gën a dëgëral fa ñu jëm te it dina tax ñu gën a ñimee fi ñu jëm. niñ koy évaluer gis doxinu femme rural moo tax ñu indi ñun autrement ndax ki nekk ci ñun ñii kuréel yu bari la ñu bokk ci yeneen i kuréel yu bari la ñu jiite mais autrement ji tey dafay màndargaal ni ñu war a doxee ak fi ñu bëgg a jëm jigéen ñi naam bàyyi woon nañ leen xel. waaye du à 100 pour cent du sax à 50 pour cent jigéen ñi dañuy bëgg a bay bay tëleen du ñu am suuf suñu bayee du ñu am jiwu wu matale du ñu am ay jumtukaay yu mat dañ koy jox góor ñi bàyyi jigéen ñi. ñu gis ni financement yi ñuy jagleel jigéen ñi tam yenn saa yi nga dégg ay milliards waaye fa mu war a egg ca femmes rurales eggu fa ñu ne nag kon war nañoo jóg ñun taxawu suñu noor yooyu ba lépp loo xam ni programme la ak politique bu état di def ci Sénégal. te muy jëm ci wàllu jigéen ñu fexe ba alliance bi taxaw seen wàllu ñu mën koo jot ba mu egg fa mu war a egg ñu ni tamit cër boo xam ne dañ koy jox jigéen war koo jox jigéen war koo jox góor te jigéen ga man ko am ay compétence am nañ fexe ba jigéen jooja ñu teg ko fañ ko war a teg looloo sabab ñu ni ci journée bii nga xam ne ñu ngi koy dëgmal di ko waajal dinañ am ay panélistes yoo xam ne ñooy ñëw waxtaanal ñu ci la femme rurale autrement ñun niñ ko bëgg dinañu ñëw waxtaanal ñu tamit ci économie wala wàllu transformation wala wàllu leneen dinañ ñëw waxtaanal ñu tamit ci santé de la reproduction waaye dinañ bëgg a defaale dépistage volontaire ci wàllu cancer du col de l'utérus ñaan nañu yàlla ànd ci ak Marie Stopes ngir ñu mën a ñëw jàppale ñu ba si ñu jigéen ñu ci bëri ñu mën leen a dépister ci la quinze boobu kon autrement ji mbumbaayu ñu folklooru ñu ndax buñ doon def loolu buñ ko bawul woon sax du ñu ñëw ci kër sëñ Touba gi di ko fi defee rawatina nag bañ ko bàyyee ñun autrement ji day indi ci doxalin day indi ci eh, mën-mën bi nga xam ne ñun mën nañ ko ca di ko def waaye day indi ci jëf yi nga xam ni ñun moom la ñu war a jëf ci kàttanu yàlla looloo sabab ñu bëgg koo defee kër Serigne Touba Gueye ñu sabaruñu tàccuwuñu li ñuy def rek mooy wane suñuy jëf présenté fi ñu bëgg a jëm installé suñu bureau régional suñuy activité ñu xam ne lii la ñu àndandoo ko def ko ci kàttanu yàlla dépisté ñi nga xam ni di war nañ leen a dépister waaye région yi nga xam ni war nañoo ñëw muy 14 régions yu Sénégal yëpp ñu ngi leen ciy woo bu ñuy ñëwit dinañ indaale échantillon ci produit yi am ca région ba bu ñu ñëwee jël ñaari table exposé ko ca ngir ñu mën a xam ni lii kat région bu ci nekk lee fa am lii nag mënuñu ko def ca woowuñu ci borom réew mi muy euh, Bassirou Diomaye fay premier ministre Ousmane Sonko ndax ñoo yor gouvernement te ñun développement la ñuy def ministre yi nga xam ni concerné na leen tamit bind nañ leen ci lettre yëgal leen ko ministre de l' agriculture ministre de la famille ministre microfinance ministre du commerce ministre de la santé bind nañ leen ngir ñu ñëw ànd si ak ñun ci liggéey bi bind nañ tamit DER délégation entrepreneuriat rapide ngir mu mën a ñëw ànd ak ñun muy soxna Aïda Mbodj ngir suñu bés bii nga xam ni moom la ñuy defee ci Touba mu egg fa mu war a egg mel na mu war a mel jigéen ñi bu ñu fi jógee autrement ji sax dàkk ci Sénégal loolu la ñu bëgg te loolu la ñuy wut.